yooyu nag ki nga xam ne moom moo la yóbbu loolu ci moom lay aju ginnaaw bi nga xamee ne package bi nee na la nangam lay jaar ndax package privé am na ndax ci hôtel yi ñuy dëkk mooy wuutee ak li nga xam ne keneen mën na koo jaayee loolu dafa dugg ci li ñu naan produit moo tax ci biir délégation ni ñu organisé woo fexe nañu ba maanaam kenn ku ci ne dinañ xam sa fiche produit maanaam boo nee masala damay jaayee juróomi million moom délégation dina xam fan la say contrat hôtel nekk fan ngay nekk kon étape de Dakar bi dafay loo xam ne ki ñuy topp dañuy bëgg mu bañ a doon lu ñu cof moom bu bëggee dem aj déggoon ngeen ay jamono yu yàgg ngeen di dégg ñu naan pèlerin en rad loolu li koy indi mooy ñi nga xam ne dañuy ruur ci booru tool bi nekkuñu ci biir tool bi ndax ci biir tool bi li ma junj léegi muy 12860 mooy quota bi ñu may senegal mu ñu dem 12860 yooyu li ma wax léegi mooy état bi am na ci 1860 privé bi am na ci des. léegi privé bi noonu lañ leen jëlee onze mille yi jox leen kenn ku ci ne li nga ci war a am ngeen ñu nekk ci ay regroupement ren regroupement yi toll ci vingt huit regroupement regroupement yooyu nag am na yeneen structure yoo xam ne ñoom tamit am nañu agrément am quota nekk ci biir regroupement yi ñooñu ñooy mën a def nag convoyage bi kon nag booy dem hangar pèlerin moo nekk ca booru aéroport ba boo fa demee ci sa càmmuñ foofu la Sénégal léegi am bërëb boo xam ne moo nar a nekk la future maison euh, di Hajj mu doonoon loo xam ne privé yàgg nañu di ko di ko di ko bëgg ba ni nga xam ne suñu borom dogal na ko mu jaar ci son excellence président euh, Macky Sall ñu ñaan suñu borom fayal ñu ko ci jëf ju rafet jooju nga xam ne def na ko ci bërëb bu mel noonu kon loolu euh, la Tawfekh Production bëgg def ko d'une manière boo xam ne képp koo xam ne nekk nga ci diaspora bi am yéene ñëw Sénégal ngir def fi sa aj nga xam ne lii mooy li jiitu mooy li nga xam ne moom la ñuy wax formalité administrative formalité administrative na day loo xam ne mënut a ñàkk ndax aj gi toll na foo xam ne bu njëkk suñuy passeport yëpp la ñuy dajale ak këyit yi mu war a àndal yóbbu ko ci ambassade bi ambassade bi jox ko consulat bi consulat bi def ci liggéey bi mu war a def visa yi génn léegi nag Arabie Saoudite am na gis-gis boo xam ne dafa jëm vers horizon 2030 ñuy wax ci at mi ñoo ngi nekk 1444 mais ñoom ñoo ngi ko yóbbu ci 1452 ci Ijiriya donc at moom lañ jàpp na ñoom buñ ciy àgg war nañoo mën a organiser woon noo xam ne comme bëgg nañu 30 millions de personnes di ñëw seen dëkk aj ak umra kon war nañ koo mën a organiser noo xam ne su le plan digital ba képp koo xam ne war ngaa jot sa visa doo ko jotati léegi ci indi sa passeport ci fële ci consulat ba da ngay ñëw rek jox ko ki nga xam ne moo lay saytu bu ko defee visa bi léegi dafa électronique ñoom nag ci biir. gis-gis yooyu nga xam ne am nañ ko jëm 2030 ci lañ dem ba léegi sax paiement yi dafa nekk paiement yoo xam ne ay paiement électronique la ñoo ngi sax di nekk di xalaat ci ay chèque électronique yooyu yëpp nag dafay jëm rek ci ne wàccaay wi nga xam ne ñun suñu réew jaadu na ñu amaat yeneen organisation yoo xam ne dinañ ko def ngir mën a gën a mën a waajale suñu ay doomi réew ba buñ fa demee la yeneen doomu réew di am ca biir dëkk ba ñu mën koo am kon euh, loolu Tawfekh Production boo gisee muy ñëw ci étape bu njëkk bi di ci indi ci premier numéro di indi les formalité administratives day bëgg ki nga xam ne moom sori nañu di ñu déglu bu ko defee mu mën a xam ne moom bu dee dafa bëgg a jug dem ci aj gi am yéeneem wala koo xam ne dañ ko woo ko ah jot na de suñu borom indi na xéewal am na lu la mën a gan bu boobaa bu jugee dina xam moom fan la war a jaar ndax moom bëgg a yëgg dëkk moom boo jaarul ci yoon fii fan la rek ngay mujje moo tax taw Tawfekh Production jël loolu def ko mas'uliya muy responsabilité ngir ci wàllu communication ñun mu bokk ci loo xam ne ñun suñu contribution la par rapport ak l'information publique mooy li ñëpp war a jot mooy li ñëpp bokk ñu war cee jote noo xam ne benn jafe-jafe du ci am parce que ñàkk xam lenn ci loo xam ne moom nga jëm day tax ñu jaaral la ci yoon woo xam ne fii fan la rek moom ngay mujj loolu nag Tawfekh Production responsabilité la ci am ngir loolu ñu bañ ko def ñooñu leen di euh, jox di daje ginnaaw bu ñu leen euh, joxee suñu premier numéro ci suñu deuxième numéro ci yeneen yi nga xam ne dafay dugg ci manasikul aj asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu labbayk la sharika lak labbayk